asalaamaaleykum daleen ak jaamu projet Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang nekk projet Prodac bi jur coow dox si diggante moom mi Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck nag génn di joxe ay kàddoom point de vue di wax projet bi jarul woon sax muy dem tribunal Sénégal dañu jàpp ne lépp loo xam ne xew na rek tribunal moo ko war a àtte waaye bile mbir nag jarul woon tribunal disi si dugal loxoom ñoom ñaar mbir mi mënoon nañ ko àtte rek ndax. li nga xam ne moo di mbirum politique la rek mën nañ ne ki nga xam ne daf la wax ne lii def nga ko jërul nga koy porte plainte muy nekk ab réponse mu nekk bi mu doy waar moom seexee Cheikh Yérim Seck di àddu ba tey tamit si euh, li nga xam ne moo di troisième mandat ki di président Macky wax président Macky Sall coow li am Sénégal yëpp moo ko waral mën nañ ne maanaam ndax lépp si moom la àddu mooy benn kàddu rek la war wax coow li maanaam mën a muy troisième mandat bi oui maanaam bu defé réponse rek ni ciow li am Sénégal yépp man nañ né man na arrêté parce que danaan dina def troisième mandat wala du ko def ku nekk xam te nga wara fété féete di kàddu Cheikh yirim Seck di àddu batay mom ci dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko bi muy wax que ne dossier bo mom dafa wara lèr ak lu man di xew parce que 14 morts de caaxaan mom Cheikh yirim Seck mo wax lu ni mel bu ñu jugee fofu ñu àddu ci kilifa gi di Serigne muntaka mbake xalifa général kullu di ñaanu suñu borom. wéral ay cëram mu yàgg fi lool moom nag mbir ma nga xam ne xew na Turquie jébbal na cent millions ñi nga xam ne ñoo di waa Turquie yooyu noonu mooy euh, kër yi nga xam ne daanu na fa mu nekk mbir mu day waar mu nekk Serigne Mountakha Mbacké nag lu lu mel moom yàgg na ko def mu nekk lu ama ama ama am solo di wax ngeen wéy di abonné si sunu chaîne bi nag di partager vidéo yi di like jaa jëf